ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. Euh, mën naa xam tur bi naka la. góor gi ka. gi ka ñu ngi lay fekk fii tey Malika ngeen initié lu am am solo muy cinq philosophique tey euh, mën ma présenter mouvement bi initié lii. waaw bon comme niñ ko waxee rek yaa ngi ma ñëw fekk fii Malika ñu ñooy mouvement des jeunes et élèves étudiants laay je suis le secrétaire général. ñu ñëw fii Malick Top pour offrir élèves yi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp terminal une synthèse de philosophie vu que bag bi léegi mu ñëw te élèves dañuy soxla loolu moo tax ñu mobiliser suñuy moyens pour suñu professeur ñëw fii pour permetre élèves yi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp terminal ñu mën a accentuer bu baax ci li nga xamante ne moom mooy philosophie nga xamante ne professeur yi dañu tàmm ñu defal élèves moom naa dañ ko def ak co-organisation ak eh, daaw Baye Daouda en collaboration avec le MG nga xamante ne suñu ay eh, activité yu si ëpp ci wàllu éducation lay dox loolu moo waraloon tey ñu ñëw fii ci Malika fii ci salle eh, foyer bi permettre élèves yi à ce que ñu mën a comprendre bu baax philosophie bi. Euh, vu que lii ngeen def nii nekkul lu yomb yan moyen ngeen ci demee. waaw euh, nekkul lu yomb c'est vrai parce que laaj na ay frais yu bëri. maintenant sunu ay cotisation la ñu ak un peu li nekkoon sunu ay caisse mobiliser ko loolu moo waral tey ñu mën a réussir journée bi tey. léegi attente bi lan bi mooy à ce que élèves yi teew fi yëpp euh, suivre CNDS bu ñu demee bac incha allah ñu mën a am moyen bi nga xamante ni dina leen permettre bac bi mën am ci ci lu gën a yomb. léegi ban message nga leen di lancer. waaw maa ngi lancé bépp élève ba nga xamante ne terminal ngay def waxuma la rek fii ci Malika mais euh, pour la euh, pour toute la région de Dakar nga xamante ne yéen ñi def bac nañu concentré bu baax te xam ni bac aussi examen la mais yàlla moom mooy maye ñu xamante ne daal euh, jàng la rek mën nga jàng ba ba am benn niveau bi aussi nga dem ba bac échoué mën nga aussi nekk élève boo xamante ne bu ngeen nga dem bac réussir donc mise en part jàng leçon bi ak assiste synthèse renforcement yi lépp ci loxo yàlla la et ñu leen di souhaiter une très bonne chance pour ce que ñu réussir ñoom ñëpp. kon maa ngi lay jaajëfal lan de la fin. bi mooy que genre synthèse yi eh, damay ñaan à ce que yeneen association yi nga xamante ne ñoom ñooy jox ci éducation ñuy prôner genre événement yi di ko pérenniser nga xamante ne à l'approche des examens ñu mën a offrir eh, élèves yi synthèse philosophique pour ñu mën a réussir seen examen. merci maa ngi lay maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. di la ziar bu wér la jox sa wàccuwaay. waaw ñu ngi la koy delloo bu bari. Euh, professeur dañ seetlu seetlu ni euh, à l'approche des examens euh, ñu bari dañuy initier comme journée bi muy synthèse philosophique lan mooy solo si. waaw synthèse philosophique solo sa nekkul lu dul fàttali xam ba ci diir bu ñu nekk sax dañuy wax ni le rappel profite au croyant. maanaam nit ki di ko fàttali dina tax mu gën xam li nga xamante ni moom moo ko war kon defal leen synthèse philosophie euh, nekkul lu dul fàttali leen euh, les grands axes yi nga xamante ni moom moo nekk ci programme bi surtout yi nga xamante ni yu essentiel la yoo xam ñoom dañ ko a jàpp leen defal synthèse boobu noonu comme que philosophie bokkul ak yeneen matières yi nga xamante ni ñoom yàgg nañ di ko jàng ci yeneen classes yu leen précédé mais philosophie maximum ci 7 mois lañ koy jàng léegi ci 7 mois yooyu noonu da am jafe-jafe pour maîtriser yenn principes yi wala yenn da ciy baax pour ñu leen koy defal pour que ñoom ñu mën a xam que ni ci année bi lii lañ ci jàng lii lañ si jox mais lii lañ ci war a lii loo xamante ni lu mënta ñàkk la ba ci yenn turu philosophie sax dañ naan leen soo leen ko juumee garaawul parce que dañuy comprendre parce que defoo leen ko benn année mais am na yenn turu philosophie yoo xam ne waroo leen ci juum ndax ce sont des yoo xam ne dañuy ñëw souvent moo tax euh, lii nag lu ci solos bi mooy da ciy baax ñu commencer initier la philosophie dès la seconde wala dès la première parce que am na yenn école yenn dëkk yoo xamante ni donc boo jëlee le cas de benn suñu benn prof mu ñu ko doon wax ñoom dès la seconde lañ initier booy pour que ñu mën a am fil base philosophie ndax philosophie dafa nekk matière bi nga xam ne dafa xaw complexe moo tax boo ci amul farlu bi rek mën nga mën nga décourager quoi. waaw fi jot a wane nii est-ce que parce que dafa nekk li nga xamante ne suñu domaine la donc bu ñu xëyee si la ñuy ba ci à l'université donc moom lañ nekk di def donc dañuy joxe ay cours dans les dans les privés on donne des renforcements à domicile kon loolu aussi yaakaar naa ne domaine la bi nga xamante ne donc ñun maîtriser nañ ko moo tax ñi nga xamante ne ñu nekk ci di ci di ci def kon yaakaar naa ne lépp lu ñu ciy wax rek euh, lu ñu jàng la te lu ñu xam la te du ñu permettre aussi ñun lu ñuy jàng ñu koy exprimer voilà donc. léegi ban conseil nga leen di jox. waaw conseil bu ñu leen a jox du nekk lu dul lu ma leen wax sànq rek bu may terminer parce que Descartes day wax ni ñaari source de erreur la bokk na ci précipitation parce que précipitation baaxul ci dara nit même soo mënee dara sax danga ko war a def ci nank danga ko war a def ci dal loolu mooy tax après da nga mën a gën a mën a def li nga xam ne moom ngay def mais ko def boo ko defee dans la précipitation rek mën nga fàtte mën nga juum mën nga bind loo war a bind wala mën nga bind dara fàtte ko léeg loolu yëpp a dal boo jëlee sa temps Euh, boo liiree ba comprendre bu baax parce que sujet quatre heures de temps la donc boo ko kenn mënu ko def ci deux de temps mais nag des fois des yi dañuy am problème seen xarit yi génn na yooyu léegi yooyu yëpp ce sont des nga dem jël sa temps lire sujet bi même fekkee da ngay ba quatre de temps yi jeex tax bañ naan la rendre les sujets mais toogal nga lire jël sa temps boo comprendre rek da dem facilement. mot de la fin. mot de la fin di nekk lu voilà merci beaucoup